mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat di leen gërëm bu baax teewaat fii ci 30 minutes chrono ñuy tàmm di ko defee alxamis june bu 21 heures jotee ñu ànd ak yéen ci solution info TV tey ñi ci ànd ak Ablaye Diallo ci régie bi Abdou Top Moodu ak Fallou ñu leen di gërëm bu baax di gërëm ñi seetaan bu baax a baax ñi partagé ak di aimer mais aussi tamit di commenter comme les commentaires sont libres nu mu ñëwee rek ñu accepter ko noonu. kon euh, di gërëm ñëpp di leen euh, sant Omar Bun Xataab moo nekk ci kàddu gi tey nag euh, actualité bi ñi ngi ci yoonu élection législative maanaam élection yi ni tànnaate ay député ci réew mi ci élection yoo xam ne nag ñaari weer moo ci des ñu fas yéene waxtaanee élection yi ak défi yi xaar Ousmane Sonko. ak jàkkaarloog gi mu jàkkaarlook amuseurs de la république noonu laa leen tuddee maanaam des gens yoo xam ne ñi ngi ci arène politique mais il amise la galerie waaw il la galerie ba yenn saay sax nit ñi di leen kokkali seen i dox doxalin ci ñàkk dayo ci ñàkk fayda mais aussi ci ñàkk argument politique pour mën a jàkkaarloog régime bi loolu lépp dinañ ci dikk ñu ñëw ci élection yi ak enjeu bi pour Ousmane Sonko Ousmane Sonko macha allah mën nañ wax ni ba mu dalee di politique ak tey jii di dem élection 2017 2019 2022 2024 mu bokk mu ñàkk a bokk yàlla da koy suturaal maanaam lu mu song rek da koy daan. loolu nag ndimbalu suñu borom la waaye tam ak parloom loolu nag mu jàll ci jamono ji mu jotul réew mi nekk ci opposition tey jii mu dem ba yor pouvoir ànd ci ak jomaay mu nekk la réalité du pouvoir bu ne la réalité di pouvoir mooy da ngay dund la réalité la demande sociale immigration nga dund li jëm ci inondation dund ay rapport FMI yooyu yëpp di ay réalité yoo xam ne nguur gu mu mënti doon da koy doonu ci geneenu nguur depuis abdu Diouf Lay Wade Macky ba ci Jomaay ku dem rek da nga koy bàyyi sa morom mooy la demande sociale loolu nag mooy li ko indi mooy sunu réew yi dafa sooxe lu bari ci wàllu koom looloo tax képp ku ñëw rek da ngay bay sa waar dem keneen ñëw bay waaram dem mais lépp kenn mënu ko sottal looloo tax nit day ñëw na la horizon deux mille cinquante nit ñëw na la fekk cinquante ans fii na ni parce que xam na ni ci benn wala ñaari mandat yi ngay am mënoo ci defar réew mi parce que weñ gi li olof naan. ma nga bañee ca mbanjaxaan ga parce que ñun suñu réew danoo def faux départ on est mal parti loolu nag bokk na ci colonisation ak tubaab bi bokk na ci crise politique yu ñu dund 63 68 88 93 2000 2012 ba tey jii mais aussi nguur yi fi jaar ku ne def nga sa waar mais li tax réew di développé dëgg-dëgg ñu bari ci ñoom dañ ko sàggane mooy la bonne gouvernance maanaam sàmm alalu réew mi ba ñuy juddoo ci réew mi màggee ci réew mi mën a tekkee ci réew mi di jariñee ci réew mi mais fii benn élite rek nga fi gis ba Sénégal sosoo ak tey jii élite boobu mooy élitu ay sëriñ et le tout ay politiciens ay journalistes ñi nekk ci administration bi nekk ci fonction publique ñi nekk dans le privé mais lëngoo état di noncé suñu alal dama mës a togg sam benn kilifa ñuy seetaan le journal vingt de la RTS li may wax ni yàgg na boobu est-ce que commencé naa def média ñuy wax ay convention yi ñuy signé naan Sénégal si ñu ne convention temps ñaata milliards du dugg na ñaata lii mu laaj ma alal jii di dugg nag moom est-ce que sénégalais ñi ngi koy gis ah ma ne ko wóoruma de mënuma dama gis ni buñ ko doon gis xanaa ñàkk gi ci réew mi dina dañ loolu juge ci aide au développement ñu naan ko FMI banque mondiale ak yeneen ak yeneen ay alal la yu ñuy leb si sunu tur mais alal yooyu la masse ñi nekk ci suuf duñ ko gis loolooy dem ba nit ñi xàdd ci réew mi gis ni képp ku jegewul nguur wala képp ku amul affaire ak nguur wala képp ku politikul mënoo am xaalis moo tax ñépp soobu ci géew politique parce que mérite fayatul da jàng ba yey say kayit waaye fi ngay mujj mooy toog ci banu jaaxle wala ci bopp koñ mais dangay gis ñi dugg ci politique démb rek xëy rek accéder au pouvoir rek yor alal loolu lañ yàgg a gis lu tax na ma ni défi yi xaar Ousmane Sonko ci élection législative yi mooy la demande sociale loolu ñu fexe ba régler ko mu am équité am égalité sur le plan social am justice sociale ba sénégalais bu ne mën a yëg ni réew mi bu neexee moom la neexal mais bu naqadee moom la naqadeel looloo tax Ousmane bi mu ñëwee mu woote patriotisme don de choix maanaam sa réew gënal la sa bopp maanaam loolu bu ñu demee ñun ba cultiver ko intégrer ko day tax duñ bëgg gàlloo ci yi day tax duñu namm leneen feneen mais dañuy jéem a lijjanti lii fii ngir mën ko jariñoo ndax njariñ loo fekke yooyu yëpp nag bu dee ni danga jiite nguur nga def fi juróom benn weer yàlla nattoo la ay nitu caaxaankat yoo xam ne gëmuñu réew mi te yow nga teg un projet ne da nga bëgg defal réew mi nga def juróom-benn weer te juróom-benn weer yi mun nga ci génne wala juróomi weer passation de service état des lieux maanaam nguur gi bu dee ni liggéey bi tàmbali na man gis naa démb ay nit yoo xam ne démb lañ jël fonction ñoo xam ne da leen nommé woon ay nit yoo xam ne da leen nommé woon ñu ngi doog a jël fonction ci semaine bi kon ñooñu lan nga mën a xaar dara ci ñoom. lan nga mën a xaar dara ci ñoom ba ngay dégg amuseurs yooyu may wax naan defagun fi dara wala def nañ fi dara waa xanaa sax doom boo ko ëmbee dina mat juróom-ñeenti weer nguur gu fi defagul juróom-ñeenti weer nga ni non doo ko may état de grâce te pourtant da ko war a am Abdoulaye Wade falu na 2000 ba 2007 xam lu ñu doon wax ñun sénégalais yi bàyyi leen góor gi mu liggéey. bàyyi leen góor gi mu liggéey ba 2007 2007 bi Abdoulaye Wade gagné élection ñoom Ousmane Tanor Dieng ak Tanor yi ñoom mu ñas lu mu doon wax mooy Abdoulaye Wade ay jinne ñoo ko woteel parce que score bi mu amoon parce que fooguñu ko woon boobu sénégalais ñu renouveler la confiance à Abdoulaye Wade renouvellement boobu ñu defoon ci Abdoulaye Wade confiance ba 2012 loolu li ko indi mooy. danoo dund alternance bu njëkk Abdoulaye wàdd mel ni Ousmane Sonko ji diggoon nu ay mbir ñu gis ni ci jamonoy socialiste yi suñu réew ci côté infrastructure dafa tarre lu bari ci côté développement dafa tarre lu bari ci côté industrialisation dafa tarre lu bari ñu ne noonu nañ jëli Wade fal ko pourtant muñal nañ Wade ba nguuram jeex premier mandat wu Wade y avait pas assez de problème surtout bu dul mbiru sànceewu Thiès ak Idrissa Seck te loolu c'est une affaire purement PDS affaire politique la jaar na fi jàll na fi mais permettre na Abdoulaye wadd mu réussir li mu réussir au Sénégal mooy def ay infrastructure autoroute à péage réew mi lu bari mu defar ko fi naam am na lu mu fi yàq pourquoi loolu ñu may Abdoulaye Wade may ko Macky Sall bi muy doog falu en 2012 2012 ba 2019 sept ans pourtant Macky cinq ans la ñu waxoon mais bi mu demee ba xam ne cinq yi doyul pour mën a defar réew cinq ans yi doyul pour mën a defar réew parce que balaa ngay régler administration bi def audit def état des lieux def lii cinq ans yi jeex ñu def réforme ci constitution bi en 2016 ñu wotee oui ci constitution bi may ko mu dem ba 2019 ci kanam dinaa ci ñëw la fekk que euh, tey jii mu dem 2019 déréglement yi mu def ci agenda bi réew mi parce que réew mi ku mu sànn jot réew mi maanaam jamono ji ngay jot réew mi ci ngay jot assemblée nationale day permettre nga mën a gouverner loolu de élection yi ñu jàpp ci le 17 novembre dinaa ñëw ci pertinence bi ak enjeu yi yi ma jàpp ni mooy enjeu yi parce que il faut que ñu dellowaat mbatt ca la maanaam dellowaat mbir yi ci normalité maanaam Macky a tout déréglé pour des raisons politiques balaa muy dem parce que référendum 2016 ak élection 2019 yi moo indi problème yi bari parce que bu nangu woon Macky def cinq ans maanaam élection présidentielle yi nekk 2017 au lieu de 2019 Sénégal mun na bañ a toll fii Sénégal mun na bañ a toll fii mais yàlla aussi bi defar de mel na koy yàq est-ce que bu doon ni 2017 élection présidentielle am na dayo bi Ousmane sonk am dina ko am dafa mel ne yàlla ci njuum tey Macky Sall la doon tabaxee Ousmane Sonko parce que 2017 boobu mënagun Sonko seetloo bi mu demee législative plus fort reste la génne bu fa amaloon élection présidentielle ci jamono jooju. est-ce que dinañ am jëmm jii loolu tax li pousse loo Macky ak référendum ba ba 2019 ba Ousmane Sonko gën a pare moo ko may 700000 voix avec 15 pour cent yooyu mbir suñu boroom la ki koy def sax du xam lu tax mu koy def mais da koy def naka te da am ku mu koy defal te yëgu ko loolu tey jii Macky Sall def parce que bu ñu defoon élection présidentielle 2017 day tombe ak élection législative même année bi. ci ngay am présidentielle am ci législative le problème est réglé duñ am problème yi am yëpp duñ ko amati mais le fait que ñu réformer la constitution loolu moo indi tey ji problème yu ñu am ci kañ la ñuy def élection législative lu tax ñu loolu tax le fait ñu jël élection yi teg ko le def ko ci même année bi ñu amalee élection présidentielle en 2024 day rétablir ordre bi parce que bu ñu amee législative en 2024 2029 bu ñuy amaat présidentielle même année bi lañuy amaat législative mun na am sax ci diggante bi ñu réformer le code électoral pour mën a cumuler les deux yooyu yëpp mais loolu ci kanam la looloo tax delloosiwaat mbir yi dafa baax looloo tax assemblée bi tamit lool ci pertinence yi la bokk léegi nag enjeu bi pour son ko mooy en deux mille vingt deux dem na fi élection législative. jiite liste yóbbu coalition au pouvoir bi bennoo ci diirante mbagg maanaam diirante mbagg loolu mu def tey jii élection yi dafa war a def plus parce que tey moo yor pouvoir mais avec la réalité du pouvoir parce que dans l'opposition yaay le ministère de la parole amoo compte booy rendre amul dara da ngay diggee rek mais tey jii bu waree dem élection législative jiite la liste de de la coalition au pouvoir xamul xaw ma ni tuddee seen coalition bi bu dee Sonko moo ko jiitee Sonko dafa war a am plus de quatre mais aussi ci wàllu wàllu pourcentage dafa war a am plus de cinquante pour cent bu dul loolu waa ba jibe ak seytaane yi nekk ci réew mi bu amee moins que ça xam lu wax Diomaye moo ëpp légitimité Sonko loolu la Diomaye moo ëpp légitimité Sonko parce que fu Diomaye amee 54 pour cent te xamul ne 54 pour cent yi Diomaye mënu ci sax gañe njagam ñaaw maanaam Sonko moo root rootaaleel ko te ñiy wax ñëpp ñaanuma ko yàlla tey bu yi demoon ba déglu waa ba jibe yi ci réew bi ne day wan ginnaaw Sonko <laughs> di dina mere ku ko deful dara dina xam ne nit ñi topp ñu ko woon Sonko lañ toppoon loolu c'est la réalité. lu tax may rappelé lii nit dafa gaaw a naagu nit dafa gaaw yëg boppam parce que boo déggee ku mel na ñoom Cheikh Abdou baar Bara Dolly ñoom Bougane géey ñoom keneen ak keneen koo ci waxal mun la noo jomaay ku baax la waaye Sonko hmm, wax yu kenn xamul alors que jomaay ci barke Sonko rek lay doxee naam mooy président de la république waaye nag suñu borom mooy dogal parce que pour la première fois au Sénégal le leader d'un parti politique battre campagne pour son challenge cholestéram comme ni koy américain yi di waxee jël ko teg ko au pouvoir moom mu nekk le premier ministre du gouverner ñu ne non bu demee législative non Sonko ay nitam la bëgg teg maanaam dafa bëgg a jël assemblée bi pour dem toog fa nekk président assemblée di doxal pour wan ni kenn falu ko fa comme ni Bougane waxee quoi mais su mooy loolu xala war ni kenn falu ko maanaam moom comme moom institution la c' est la deuxième personnalité de l' État c' est le dauphin du président de la République mais loolu mais loolu affaire interne bu Pastef la au moment où Diomaye nee na militant simple bu Pastef la Sonko moo jiite Pastef ba tey jii mais bu jiitee la liste ñu pare ñu wóolu ko parce que mbir mi nag coow li coow li mooy ci loxo sénégalais yi la ne si loxo sénégalais yi ñooy jàpp ni Sonko kat de xeex na ba dem au pouvoir pour ñu mën ko bàyyi mu gouverner tëral projet bi comme ni mu ko tëralee ak ni mu ko bëggee pour doxal réew mi vision bi mu am mën ko matérialiser il faut que ñu jox ko la majorité à l'Assemblée nationale loolu peuple bi moo koy décider léegi bu ñu demee ba jàpp ni moom bu ñu ko joxee majorité Pastef gis ni Assemblée nationale la gënee que premier ministre. loolu Pastef la loolu Sonko la affaire choix la le choix est libre mais waruñu ko di dugal ci question non dafa bëgg a jël assemblée dootuma Sonko mii gëm naa ne namatul dara ci politique ku yëg ñay wàcc ko loo yëg mu tuuti dafa gën dafa gënoon a metti dafa gënoon a metti mu root rootaaleel leen fal ay maire fal ay député yaa ngi gis fal président dans l'histoire politique du mondial maanaam jàngale nañ lépp ci politique ci téere Macky Havel borom xam-xamu politique yi ñuy def science politique mais ñooñu ñëpp Sonko lañ mënta analyser parce que li mu def la nit mënta nangu maanaam nit jël pouvoir dénk nit député nga jox maire nga joxe président nga joxe te li Abdoulaye Wade doon wax na un président de la République du toog ci chaise mais ci fauteuil présidentiel lay toog du toog ci canapé ndax canapé mën nga ko bokk ak ay nit mais ci fauteuil lay toog maanaam le président moom dong la amul benn kilifa. Hmm? kon ñooñ di wax il amuse la galerie wala ay amuñu ay argument politique te ñu bari ci ñoom xamal lan moo leen nër lor. mooy danuy bàyyi xel Sonko ak Jomaay ba fàtte seen bopp alors que effort bi ñuy def pour tas diggante sonk ak Jomaay si effort bi ñuy def pour yàq Ousmane Sonko buñ ko defoon si seen jëmm yi ñoom du ñàkk ñu am dara maanaam effort yow bi ngay def pour yàq ma mais effort boobu yow boo ko doon def si sa bopp du ñàkk nga raw ma mais képp ku ci ñëw toog ci Sonko ngay kàbbare mais ci Sonko ngay sëlmalee loolu politiquement baaxul ci ñoom. un Bougane bu ñëwee il utilise les mêmes termes que Sonko alors que Sonko du Bougane Bougane du Sonko bokkuñu jaar-jaar bokkuñu trajectoire bokkuñu discours xam ne li maam Cheikh Ibrahima Fall doon wax dafa am dafa am ñoo xam ne dañ naan yaa ñii moom bi ñuy dund ak bu ñuy dee yépp yaa ñii moom mais dafa am ñoo xam ne danoo ne maa leen ni moom. xam ne yaa ñi moom ak maale leen ni moom du benn Sonko ñi mu jiite ñoo ne ko yaa ñi moom ñeneen ñi nag dañoo bëgg a moom est-ce bëgg moom nangu nan ko maanaam le cadre Sonko c'est ça mais yaa ñi moom ñun foo ñu joxoñ foofu la ñun yow rek la ñuy topp loolu ko booy wax maanaam loolu mbiri suñu borom la yow lañuy ñuy topp xam loolu mais loolu kenn mënu si dara léegi après cinq mois ñu war a dem fii ak euh, presque dans deux mois élection législative am ñu ne Sonko moo fi waxoon <coughs> moo fi waxoon ni don réew waruñ jël assemblée bi rek dénk benn parti dana war a fexe ba dirante mbagg am ca assemblée nationale du cohabitation Sénégal sa cohabitation mënu ci am parce que ñun a un régime présidentiel mais cohabitation mais jamono bi Sonko ak waa coalition Yewwi Askan yi di wax cohabitation nañu na nañu bàyyi xel ci loolu mooy cohabitation bi ñu koy wax mooy ci deuxième mandat bu président Macky Sall ñëpp yaakaar ni Macky Sall dafa war a def troisième mandat ñëpp yaakaar ni Macky dafa war a teg ay loi parce que ci Covid bi teg na fi ay loi d'habilitation li jëm ci entreprise très russie ñu tëjee booy yëpp assemblée lañ ko wotee ñu gis ci une dictature mi ngi ramper mais une dictature debout mi ngi au Sénégal ñu xam ne Macky mi buñ ko yemalewul naka baana gasi ab faga doy na sëkk Macky mun na dem ba jàppee doo Sénégalais yi ni moo leen moom ginnaaw ba mu jëlee Karim Wade teg fee de Khalifa Sall teg fee jël Sonko ci mbiri Adji Sarr yu ñàkk fayda dugal ko ci pour gàllankoor ko ñu bari jàpp ni Macky Sall sëriñ si du nga ko yedd kenn du ko wax dara kenn ñëmu ko tudd ci dara journaliste yi ñi ëpp ci ñoom mu def leen ci poosam waxkat yeeg ñoomin seen teel a wax yomb rek mais waxoon nag Macky Sall ci réew mi yombul woon jamono maanaam mi déroulé di def lu ko neex bu toogee yekk lu mel ne sénégalais xas leen dem yoonam léegi ñu ne dañuy dem élection législative en deux mille vingt deux mais bu ñuy dem élection nanu fexe am une grande coalition mooy yeewi askan wi ñu jël Sonko jiital ko pour que mu jiite coalition boobu ñu gàllankoor ko ba ay nit faatu ci réew mi Sonko jël liste suppléant bu yeewi askan wi jiital ko. list suppléant bi bari na ñooy laaj ci Sénégal kan moo ko jiite woon est-ce que xam nañ ko list suppléant bu yeewee askan wi Omar si bu ma juumula ah, rakk Habib Sy bu Linguère moo jiite woon mais tey ji question boobu boo ko posé woon teg junne am na ñu ko mënul répondre pour walla ni list bi ñi fa nekkoon ñu bari xamuñu leen liste bi dem mais am score bu baax ci barki Ousmane Sonko ñu ne nanu imposer la cohabitation le président de la république Macky Sall pour que mu baña a dérouler à l'Assemblée nationale mais finalement li xew mooy waa Wallu yi ak ñenn ci opposition bi danoo wor Ousmane Sonko parce que li ñu bëggoon mooy ñu am assemblée bu équilibré ba yenn loi yi ak yenn sañ-sañ yi waa yeew yi amoon wàññeeku pour que kat de du duñu sañ a def lu leen neex wax lu leen neex wala ñuy changer loi bi parce que yeewi askan wi bi ñu amee majorité naam c'était une majorité boo xam ne. demul noonu mais tax na leen ñu jiñ fi ay juge conseil constitutionnel corruption mais reporté fi élection présidentielle voté fi ay loi yu leen neex ngir fitnaal ay nit pour fitnaal ay nit te loolu lañ doon bañ te loolu buñ ko mënee dafa fekk ni dafa amoon ñu nekkoon dans l'opposition Ousmane Sonko fal leen ci coalition Wallu ak yi ñu dem ba ci biir ñu wor leen moo tax waa benno yi doon lëmbe assemblée mais Macky Sall bi mu faloo en 2012 majorité lañ ko jox assemblée majorité lañ ko jox assemblée pour mu mën a doxal mu doxal ba 2019 wanuñu lu ñu xam ñu yóbbu ko cohabitation mais Macky bu continué woon parce que maa ngi fàttali ko jamono ji Moustapha Diakhaté naan une assemblée xaw ma immobile xaw ma am na nu mu ko tuddee woon moom ak Modou Diagne Fada. ñu ne pour ñu am assemblée bu baax opposition bi dafay am doole mais malheureusement opposition bi joué wul le jeu mais loolu ci deuxième mandat bu Macky Sall la ay Wade bi muy falu en 2000 waa PS ñoo moomoon assemblée ba mais waa PS nekk ay républicain fexe ba gunge Abdoulaye Wade mu am majorité te balaa ñu koy gunge mi am majorité fexe nan ba lépp lu Abdoulaye Wade indi woon ci 2000 ba 2001. ñu koy woteel di ko jàppale accompagner ko mais loolu la gars yi Macky Sall yi deful ak Sonko ak bu doon ñoom Abdou Mbow intelligent nan demewuñu jikko demewuñu ay defante wala ñoom seen heure bi assemblée bi est-ce que mën a tas est-ce que duñ xaar ba ci kanam xamuñu mais lépp lu nguur gi indi nga gàllankoor ko dem ba egg ci nag extrémité mooy motion de censure daaneel gouvernement bi kurpañ fu mu jot lay dal moo tax jomaay jël décision tas assemblée bi kon nag yooyu yëpp bu fi jaaree ñu jox Abdoulaye Wade majorité ak à l'Assemblée nationale jox Macky Sall majorité ak l'Assemblée nationale une majorité mécanique et électronique mais bu demee ba jox leen lu mel noonu jamais 203 ñii ñëw ne dañ anti système. ñi ñëw ne dana jub jubal jubbanti ñii ñëw ne la bonne gouvernance lañuy prôné ñii ñëw ne dañuy prôné la rupture mais ma naari naari naar yaa ngoog gumba neex na baat jant sona ah léegi fal nañu jomaay mais nan ko joxaat majorité assemblée bu ñu bëggee am stabilité sunu réew bu ñu bëggee xam lan la projet bi di jariñ parce que ñii di opposition bi ak ni ñuy doxee xam ne bu ñuy wax duñ wax argument politique duñ wax dara mbañal la indi ak soxor ak bëgg a gàllankoor le projet bëgg gàllankoor réew mi ñooñu jar nañu xañ leen jox Sonko ak majorité plus de cent députés à l'Assemblée nationale ñu doxal seen mandat bu njëkk ba deux mille vingt neuf ñu xool buñ fi deful dara ñu am fulaay na leen li ngeen di du lii. bu boobaa dinañ mën a jël opposition bi doole leen ci assemblée nationale mais attitude yi ma gis ci réew mi ak yi ma gis ñuy doxalee ci réew mi billaahi bari na ci ñoo xam ne ci opposition bi du ñëpp duñ ay républicain danoo bañ Sonko Jomaay ba bañaa la réew mi maanaam bañaa la réew mi maanaam ñoom na fi yem bu fi réew mi yemoon tey ñoom ñu jël comme ñoom lekk ñu ci cere ji nañ ci xëpp suuf léegi nag ñun ñi moom cere ji ñoo war a am fulla ne képp koo xam ne da nga cee bëgg a xëpp ñu téye sa loxo mooy doo nekk député du la jox majorité assemblée parce que nag réew mi dafa yàgg am ay garme ci politique de man Abdoulaye Wade dama ko naw Abdoulaye Wade dafa dem élection législative 2001 xaw ma 2002 comme man des fois chiffres yi mooy loolu ak dadi day yàgg mais Abdoulaye Wade bi mu ñëwee am majorité AFP am 11 députés pes am 10 je ne sais mais AFP mu ëppale woon werante am ci groupe parlementaire yi ak ay garmi Abdoulaye Wade pour équilibre am assemblée nationale démocratie mun fa am naam am na une majorité mécanique et électronique ca assemblée nationale sañ a buur sañ a bummi Abdoulaye Wade dafa fexe ba ñu réformer le règlement intérieur de l' assemblée nationale PS am groupe parlementaire PDS am groupe parlementaire mais aussi AFP am groupe parlementaire boobu nag amoon nañ ay député naam sax amoon na yu fa doon xew mais boobu amoon nañ ay député yu ko mat xam ne bu réew mi soxlaa mën nañu fàtte seen bopp accompagner ko mu doxal ba bañuy egg ci yeneen élection kon il faut ñu xam enjeu yi ci élection yi enjeu yi pour réew mi mais enjeu yi aussi pour Ousmane Sonko mooy bii mooy premier test ak défi bu ñu war a relever ginnaaw ba ñu jotee nguur ban discours la ñuy tenir nan la ñuy doxalee ak ñi nekk ci pouvoir bi nan la ñuy doxalee ak ñi nekk ci opposition léegi nag posture ku am ak posture ku doon uddu benn ku am mooy ki nekk au pouvoir. gaa yi ne jomaay dafa baax jomaay moom daa baax jomaay moom dafa lii jomaay moo soxla majorité ndax moom lañ dénk réew mi à l'heure du bilan en 2029 jomaay la ñuy laaj nan nga yore woon réew mi kon yéen ñi ne jomaay daa baax léegi bàyyi leen Ousmane Sonko léegi jomaay moo soxla ne nan dem la le 17 pour ñu yokk majorité pour mun a gouverner comme jomaay moom baax na pour walla ni gars yi dañuy wax ba dugal seen bopp ci mbedd moo xam ne mënuñu fa génn Diomaye moom dafa soxla assemblée pour mën a dérouler la projet pour bu benn yenn loi yi ñëwee mu mun ko doxal constitution bi réforme yi mu ci bëgg a def mu def ko léegi fàttali leen Ousmane ñëw leen ci Diomaye léegi nag ma ñëw ci Sonko lii nag moom conseiller bu ma jox Ousmane Sonko réew kenn du ko yore jikko Ousmane am na personnalité am na lu muy bañ lii la ni mais ji nga boo jiitoo wala fi na sukk du tee yóbbaale say oom réew mi dafa am ay réalité dama bëgg Ousmane Sonko nga yor jikko yi Abdoulaye wàdd foofu laay daanelee Ablaye mooy képp ku ko sori bañ ko boo ko jegee bëgg ko mooy réew mi daa am nu muy doxee bu laajee nga seeti sëñ Moustapha seeti ko bul ànd ak kenn seeti ko ngeen waxtaan looloy Sénégal bu laajee nga seeti Alioune Tine seeti ko bu laajee nga seeti Massamba ak Mademba seeti ko mais ñi wër Ousmane ko tamit Ousmane bu amul jotu dem seeti ko Ablaye foofu laay jeexalee dem seeti gars yi yenn saay mun nga sax fal nan la yaa ngi fay ko benn 5 millions yaa ngi passif da ngay jékki rek bul jël sax sa oto jëlal oto bu neutre wala nga jël taxi kenn du la xàmmee nga dem ba ci benn kilifa sëriñ ya ca fuutaak ya ca jolof ak ya ca keneen ak keneen dem na ko ah, ñu Ousmane de bëggoon na fee ñëw waaye nag réew mi ak inondation yeeg immigration bi ci la ne yëkkati sa un million joxe addiya na ko lii de Ousmane moo ko fi bàyyi moom de moom a kii loolu du ñëpp nga koy defal mais sunu réew dafa am réalité ak. li naan les grands électeurs te boo yoree nguur di dem ci élection dafa am ay méthodes yooyu utiliser parce que dof dof lu ba am moo gën nit nit lu du ñàkk kon loolu conseil bu may jox Ousmane Sonko ak ñi ko wër kilifa dañ koy dimbali fu mënta tànkam nga demal ko fa waxtaanal ko ak ñenn ñi fexe ban bëgg ko parce que dafa am suma benn sëriñ bu doon ñaan naan sa noon del ñaan yàlla tàggatal la ko ba mu doon soppee te loolu ni ngay doxale ak moom moo koy def kon mbokk yi kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di jégalu ñëpp di baalu àq ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm kon euh, beneen alxamis incha allah ma dellu si waat rek ñu fas yéene waxtaan émission baa ngi noonu kon à vos commentaires ngeen aimer partager mais aussi tamit euh, mi ngi noonu Ablaye jërëjëf ci régi bi El Hadj Modou Diouf Abdou Top ak euh, Fallou Omar Bun Khattab géey moo nekkoon ci kàddu gi kon ba beneen alxamis incha allah.